بيت القرآن همة أعضائه ومؤسسيه هي نشر القرآن المجود القرآن المتقن أحكاما وأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu tënkal leen ci lu gàtt importance julli ci lislaam ak fi ko suñu borom yàlla teg xam ngeen ne ci lislaam dafa am arkaanul islaam arkaanul islaam yooyee julli moo ñaareelu ponk ba ginnaaw bu nit ki tuddee ñaari baati seede yi nga xam ne moo ko dugal ci biir lislaam la ca topp mooy julli julli googu nag sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam da koo misaal ci lislaamu mel ni bopp mel ci yaram noo nii la julli mel ci lislaam lu nekk mën naa manqué ci yaram borom di dox ba mu des bopp kon islaam bu ci julli génnee islaam nekkatu fa beneen bi mooy islaam itam dafa teg julli ci mu nek li nga xamne moy takale digeunte nit ki ak kefer julit ak kefer li tàqal sa diggante mooy julli mu ko bo defee kon islam kon julli moy julit julli moy tax mu nek julit benen bi julli dafa bok ci nga xamne ne ñoo mën dimbali nit ki ba mel yàlla bëgg manam yàlla dañu jox ay moyens yu ñuy jaare ba mel ni bëgg ba ci ëpp doole moy julli ndax alquran ba ci demee ngay fekk mu ne اتل ما اوحي اليك من ربك واقم الصلاه نغا جانغل يالا وات سكو تيغا تخاول جولي داخ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر جولي موي تري لو نياو اك لو بون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون كون فاو نيت كي خامنا جولي نيكول ورا فويه كيب كولي سي اسلام دا دون ساغالا جولي na nga bàyyi sàggale julli googee tey julli te tam julli nag boo ko def def ni ko islam santaane da bokk waajtaayu julli ci wàllu laab te ba ca gën a jege rek mooy am njàpp dafa am lu ñuy wax laab ci saw yaram ak ci sa yére ak barab bi nga jullee loolu la ñuy wax taxaatul xabas beneen laab gi mooy laabu njàpp bu fekkee ndox am na da war a jàpp njàpp moom it da war a xàmmee farata yi ak sunna yi lolou moo lay may lu ci manki nga xam lokay defare defaree te faratay njàpp yépp alxuraan tudd na ci ben aya xana yene la indi wu tiyene mom waxal nañ bu yàgg ca lislaam waxal yentu yontu sa waxal na ca bamuy jàngale lislaam ca hadith jeuk ya innamal amalu binniyat ligay def lépp lu mën a doon yéene ji mokoy définir ne nangam la wala nangam la kon ñu xam ne importance bi islam jox julli waaye nag faaw mu ànd ak waajal ko ci am njàpp تيت ناكا جولي داي جيني نيتي الاسلام لول فاو ني خامكو نдах بو نديما القران لا ني فيك تي ايو باري باري موي تيكو تي ساغنا جولي واخما صاح بايي كو توتال ما مي ساغاني كو ريك دنجو فيك سوره مريم فيك كو تي سوره الماعون بيجي سوف ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين نان yàlla ne aw xur ca sawara ñeel na ñi nga xam ne ay jullikat lañ moo ñan alladina hum an salatihim saahuun alladina hum yuraun wa yamnauna almaaun ñi nga xam seen julli dañ koy sàggane duñ ko def ni ware wala sax ñu tey ngissal julli ga leen di indi leen leen leen mbugal ak fa xalafa min baadihim xalfun adaau salata wattabau alshahawati fa sawfa yalqawna gayyan ak ñoo xam ne dañoo donn ay nit ñu baax ci ay yonente ki saalixiin seen gannaaw ñu sàggane julli doyadal julli réeral ko ba pare di def ay caaxaan topp ay bànneex nee na ñooñe dañu dajeeg aw xur da ca sawara tudd xay yi yàlla ci yàlla boole musal kon ci résumé daal loolu mooy julli ci lu gàtt niñ ko war a defee nag weesu ni ko yonte saa sam naa defe sallu kama raaytumuni usalli ci dal ak rukooy dal ñang mu wér sujjóot yu dal te baña def cofub ginar dap dap dap waaye nga julli ko julli gu dal gu tey tay li mo nek suñu yobbal ci baytul quran te moy julli ak importance ak أعوذ بالله من الشيطان